ci post bi la jox ñu jox la ko ñu am si ferte lool ñun ñi nga xamante ni day ñoo bokk Sëriñ Touba muy poste Daaru Musi yooyu ñaan yàlla defal ci ndam xam naa nag li la jox moom lu jafe-jafe yor la tey sama temps bariwul parce que dama waxoon ni maire yi nga xamante ni xëy na ñoo bokk ak ñoom coalition yi nañu bàyyi ñu si bari ñu wax ndax li nga yor lu si bari mu ngi jëm ci mbirum maire yi ak conseil département yi mais loolu mooy Sénégal mais man damay seetlu ni man en général ñu si bëree bëri ñuy wax yëpp programme problème acte 3 seen maire yi yu demee noonu yëpp dañuy wax te gis naa ni faute de dotation faute de concours yi si bëri si lool lañuy dox man sama programme bi ma yore cinq le candidat doomu daara bu ma yàlla joxoon réew mi 2024 conseil département dama leen tas parce que conseil département ci Sénégal da yàqu xaalis te jamono yi may wax ak yow ku la nëbbul mooy situation réew mi àgg na foo xam ne ku leen bëgg maanaam génnaloo xaalis jamono yi ñu toll nii waxul lu mën a am parce que réew mi foofu lañ toll. kon il faut que ñu wax ci li nga xamante ni mooy li am solo mooy engagement yi nga xamante ni moom la état jëloon jëme ko ci li nga xam mooy collectivité locale yi fan ngeen toll ci acte 3 bi. est-ce que am na li nga xam mooy audit évaluation acte 3 waaw wala déet est-ce que yéen seen programme ps e lan ngeen jël pour que si si si li nga xam mooy collecte collecte total lan ngeen si programme yi ñaareel bi gis naa maire yi nga xamante ni tey ñoo ne si dëkk yi seen absent maire yi cinquante mille francs la leen di fay loolu jaaruwul parce que maire yu bari dañuy bàyyi seen absent maire yi ñëw si dëkk taax yi liggéey yu ñëw absent maire ñoo liggéey te cinquante la ñuy am statut élu élu élu yi yi fan ngeen si toll aussi ci programme bi nga xamante ni mooy euh, cinq cinq la candidat doomu daara bi nga xamante ni moom laa jiite ba déposé sama caution démb ci numéro 4 programme axe numéro 4 bi nga xamante ni moo nekk sans programme dama def ni assainissement euh, euh, aménagement territorial gestion inondation développement communautaire lii laa boole mu nekk benn ci axe 4 moo wax ni bu ma yàlla joxe réew mi dañu ne audité finalisation acte trois décentration audité fichier promotion acte prioritaire habitat décennie finalisation de programme spécial ville relicée bu ma yàlla joxe réew mi loolu laay def dinaa def tamit statut spécial bu Touba bi incha dinaa ko def ci 2024 parce que statut spécial bu Touba bi day demande sociale xalifa de Mouride Macky Sall dem Kaolack jël engagement ferme ni sëriñ bi dinaa joxe statut spécial bu Touba ba fi may waxee defuñu ko bu ma yàlla joxee réew mi 2024 première année bi dinaa décréter statut spécial bu Touba parce que Touba miirtoo na tey am statut spécial ñu ngi ko seen si yow dinaa def li nga xam mooy audit évaluation de programme assainissement lutte contre inondation évaluation validation politique nationale aménagement territorial bu ma yàlla joxe réew mi loolu bokk na ak sama programme yow nag suñu rakk nga suñu xarit nga léeg-léeg sa nga ni yaa mag waaye xam naa opération ñibbisil boo ñibbi sama côté nga war a ñëw man maay candidat bi nga xamante ni maa gën si candidat yi te maa ngi ci réew mi te maa jël réew mi 2024 set na mosumaa lekk xaalisu réew mosumaa génn réew mi mosumaa def lu bon maa ngi nii ku bëgg ku baax ku bëgg doomu daara ku bëgg ku jub maa ngi nii xam naa nag am na ñoo xam ne am nañ candidat Amadou Ba mais xam naa ne Amadou moom mooy nekk sama directeur campagne 2024 bu ma gañee génn Ousmane Sonko nomi Amadou Ba ñu doxal réew mi parce que nag maa mën a dox réew mi soo remercié ngeen jox Cheikh Abdou Bara Doye cinquième président la